daanaka seeni kàddu la ni sof sunu kàddu muy kàddu gu woote ak fàttali bis bi nga xamante ni nii eh, kenn ku ne xam na ni at mu jot ku aju ci maam Cheikh Anta ak noo ci ajoo sa bis la mooy bisub àddiyee Daaru Salaam waaye amaat ci nag xas sa boo xam ni Serigne Modou Rokhaya jàmbaari lislaam da nga xam ni dundam gépp da koo jeexal ci liggéeyal Serigne Touba di eh, ñu ko ci fàttaliku ci njiitul nag jëwrinam yi nga xam ni ñun suñu ndigal ci moom lay bàyyi ko muy maam Cheikh Anta moom Serigne Modou Rokhaya yu ko ñaanal fan wu gudd ànd ak saa yu yuñ jàppee bisub wooteb Daaru Salaam mu jàpp bisub màggal Sëñ Mudu Roqee ci bis boobee ci lay feddaliwaat ndigal li jëmee ko ci mbokk yi comme ni ko mbokk yi fi jaare waxe léegi waaye mu tàmbale ki sunu baay bi nga xam ni mooy sunu kilifa ñun ñëpp muy Serigne bay Dieye ñu koy ñaanal mu yàgg fi te ànd wér waaye day wolof yi dañuy faral di wax ni ku wàllu mburu te tuddub dëkk te mbir mu nekk itam am nag ko yàlla jagleel bis bi nag jagle gi mi ngi jaare ci Serigne Mbacké Dieye mi di sunu mbokk di sunu xarit di sunu lépp muy fàttaliku sangam ba di ko delloo njukkal di ko ñaanal waaye di ko sant muy mu Modou ya ngir ne yëg na ci boppam loo xamante ni ci Serigne Modou Rokhaya la ko suñu borom jaarale kon fàttaliku ko ak cant ko ak delloo ko njëkkal warteef la moo tax at mu gët buñ jàppee bis bi mu jiitoo ko ñaari fan ngir lan teeroo ko bis bu mag bi ñu defal Serigne Modou Rokhaya ren nag moo war a nekk incha allah alxamis le 23 waaye ca àllarba ja nag lay tàmbali muy ngontu maam Cheikh Ibrahima Fall ndax maam Cheikh Ibrahima Fall na taxawaayam ci yoon wi waaye doxinu maam Cheikh Ibrahima Fall ak doxinu Serigne Modou Rokhaya day wenn doxin képp mooy sàkk ngërëmal Serigne Touba looloo tax mu ne kon kuy liggéeyal Serigne Touba faaw nga jox si maam Cheikh Ibrahima Fall ab cër ginnaaw bi mu ci dëppoo ak Serigne nag ndax amul ki lenn lu ñuy def wala ñu koy yëkkati wala ñu koy yëngal te diggooñ ceeg Serigne ba am ci ndigalam bis boobee nag mu duppeewaat ko mbokkam Serigne ji liggéey moo tax Serigne ji tànn ci teemam silatu rahim mooy jokk mbokk ndax ni sax Serigne Mbacke jox boo xam ne bu ñu nee suba la mu ci àllarba ji di le 22 incha allah thème boobee la fa fas yéene waxtaane ay boroomi xam-xam yu am solo dañ ko fa waxtaane bu ñëwee ba ci bis bi nag muy le 23 bi nag ñu xëy yendoo ko ci jàng alquran ak xasiida ak bernde ak saafoonte ba keroog sëriñ bi di egg si incha allahu rabbi nii nag la programme ba fas yéene tëdde mooy jànkati xasida yi comme ni ma ko waxee sëñ daam mi ngeen dégg léegi bokk na ci sëñ Baara Ndiaye ak mboolem jànkati xasida yi nekk ci tund yi ñu ngi ciy woo ñëpp waaye jànkati alquran yi nag kenn gidaw leen ci ndax sëriñ Tuubaa léppam alquran la kitaabun bihi narju min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya uxra min al karbi ci njiitul sëriñ Balla Gaye dafay bi yëpp ñu ngi ci biir kon ñoom am am solo buñ ko daan amee waaye ñu ngi leen koy gën a fàttaliwaat incha allahu rabbi ñu xam ne ñu teel a tàmbali kaamil yi ba bis ba ñu yendowaat ko ba bi ndax lim bañ jàngoon ci alxuraan daaw bëgg nañ lim boobee yokk te lépp ñu sellal ko def ko addiyee Serigne Modou Rokhaya waaye yéen ci mbooleem jullit ñëpp Serigne Fallou Gala Sillat incha allah am na waxtaanu am solo xam ne at mu ñu koy defal ren itam fas na ko yéene defaat ki dund Serigne Modou Rokhaya waaye a kon loolu yaa ñu ab soññee loolu Serigne Fallou Galass Syll moo koy féetewoo ci bis bi itam nag ni ko baaxoo defee ginnaaw bu ñu ci amee ndigalu Serigne Cheikh Anta Mbacke ba noppi mooy at mu jot ñu tànn kenn ci kilifa yi nga xam ni mbokki Serigne Modou Rokhaya lañ woon ñii wax ak moom sëñ Modou Mamoun ñu di ay rakk ci ñoom wala ñii mbokk ak ñoom sëñ Gaawa ñu ay waajur ci moom te ànd ba rafetoon lool jël ci kenn duppee ko bis bi ren jii nag incha allah Serigne Ibrahima Mbacke Ndar moom maam Cheikh Anta nga xam ne mu nekkoon troisième xalifa maam Cheikh Anta moom la Serigne Mbacke jee xalaat tuddee ko bis bi wax ko Serigne Cheikh Anta Serigne Cheikh bëkki lool kontaan ci lool ni ko na yaatu kon ñu ngi ciy woo njabootu Serigne Ibra Ndar gépp waaye mën naa ne ñu ngi ciy woo njabootu Serigne Gaawaan gépp ndax ku tudd Serigne Ibra Ndar rek tudd maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam ak Gaawaan kon su ko defee leen nga xamante ni cër la ba tey ndax cër moom du tuut euh, te kenn koo xamante ni jël nga ci sa bis jox ko ca dara rek dina ree ca moom kee xam ne nag kenn la ci ëttub Serigne Cheikh Anta moom itam di jàmbaar lool muy Serigne Cheikh si la diiwaan ku gis Serigne Cheikh Anta gis ko ci wetam muy jëfe ndigal bàyyi tere moom itam incha allahu rabbi moom la fas yéenee dara jaale bis bi ci buñ ci àggee kon yooyu mooy ñu ngi ko tuddee waaye itam dañuy fàttaliku ndax xam nañ ni bis bi ki ñu koy defal muy Serigne Modou Rokhaya bis fañ barkeem ku ne xaj na ci yërmandeem ak xéewalam ku ne xaj na ci mbokk yi nga xam ne dañ ko àndoon ak ñun daaw fekke ko àndoon ko ak ñun ren yàlla dogal ñu jiitu ci Serigne Mbacke nee na faaw ñu defal leen aw laaj ci bis bi fàttaliku leen ñaanal leen bokk na ci suñu bàjjan bi nga xam ne ma fi bàyyi ko bu yàggul soxna Ami Dieye ñu ngi ko ci fàttaliku ci bis bi waaye itam ku ñuy wax soxna Mame Maram Mbacke moom suñu moom sëñ Mudu Maamun di suñu sëriñ waaye di suñu mbokkaat ndax sa waajuróom bu jigéen soxna May Jeng suñu bàjjan la moom itam dañ koy fàttaliku ci bis bi waaye itam di ci fàttaliku itam sëriñ Alxaaji Jeng di kenn suñuy waajur moom itam euh, waxtu yu daaw fekkoon ko fi waaye di fàttaliku itam ku ñuy wax sëriñ Bada Njaay moom itam di suñu mbokk yoo xamante ni euh, waxtu yu daaw fi la ko fekkoon ñooñu suñu borom dogal ñu jiitu ji ñooñu itam sëriñ Mbàkke nee na mi ngi leen di leen di fàttaliku waale ci bis bi yéene waale leen ci mboolem euh, alxuraan ak xasiida ak xéewal gi nga xam ni moo fay dotti ko kon su ko defee rek ci woote bi buntu kër sëriñ gaawaan yëpp nag ni nga ko tàmbalee la ko tàmbalee kër sëriñ Muudu Maamun ba kër sëriñ Abdu Góora tàmbalee ko sëriñ Mor Faati mi nga xam ne moo nekk ci bopp njabootu maam Cheikh Anta di ko euh, ñëpp ñu ngi leen koy yëgal sëriñ Jiir Abdul Xaadir mu xalifa sëriñ Muudu Maamun ñu koy moom ñu ngi koy fàttaliwaat bés bi di ko ñaanal mu yàgg fi lool di ziar rakkam sëriñ Abo Mbàkke moom sëriñ Muudu Maamun at mu jot ndawam ci ña fay njëkk lay bokk waaye sëriñ Siidi Mbàkke xalifa sëriñ Hamidun moom itam at mu jot ndawam ci ña fay jiitu bokk ñu ngi koy fàttaliwaat bés bi bu baax euh, sëriñ Sam Mbàkke xalifa sëriñ Mbàkke gëstu moom itam ñu ngi koy fàttaliwaat bis bi daaw ñëw teewal boppam ñu ngi koy fàttaliwaat bis bu baax moom itam euh, sëriñ Sidi Mbacke alquran xalifa sëriñ Abdourahmane moom itam ñu ngi koy fàttaliwaat bis bu baax ndax xam gis nañ taxawaay bi mu ci daan amee at mu jot euh, sëriñ Sidi Mbacke xalifa sëriñ Ibrahima mu alaaji daam sëñ Mbacke nee na mi ngi koy fàttaliwaat bis bu baax ak rakkam sëñ Mudu Roqee ak sëñ Abdu Baaxe ñoom itam ñu ngi leen di fàttaliwaat bis euh, moom Alaaji Sàmm moom maam Cheikh mi ngi koy fàttaliwaat bis bi bu baax a baax sëriñ Habibu Mbacke moom sëriñ Moustapha Ceytu moom itam sëriñ nee na ñu ngi koy fàttaliwaat bis bi ak njabootu sëriñ Moustapha Ceytu yëpp soxna maam Anta Mbacke Sàmm moom itam mi nga xam ni euh, sunu mbokk la sunu kilifa la sëriñ nee na ñu ngi koy fàttaliwaat bis bu baax ak euh, kenn ci njabootam muy sëriñ Daam Mbacke ak mboolem rakkam yëpp ñu ngi leen koy fàttali yooyu dem di ko fàttali itam ki nga xamante ni moom la yàlla dogal tey muy jiite dëkk bi di monsieur le maire Abdou Ndaw at mu jot day teew ci bés bi Serigne nee na ngi koy fàttali bu baax ak DC Galoba moom itam ñu ngi koy fàttaliwaat bu baax moom itam euh, Alaaji Mor Ndiaye conseil bés bi baax ñeneen itam mi ngi koy fàttaliwaat ñi nga xam ne ñoom moom bés bi muy dong ngay tarbiya yi nga xam ne ñoom la bokkaloon nekk ci ëttu sëñ Modou Rokhaya ñu nekkoon fa ay jëwrinam wala ñu féete woon ko ak ndaw ñun ñëpp bawut kenn bis bi seen bis la ndax bis bi bisub cant la te la sëñ Modou Rokhaya def ca moom ba tax mu koy sant moom ñoom ñoo ko àndoon kon ñoom itam bis bi seen bis la ñu leen koy fàttali bu baax a baax Eh, te it bàyyiwuñu kenn ci ñi nga xamante ni eh, tudd na leen waaye bàyyi ndonga mbay itam di mbokkum taalibe ci eh, kër gi am ci taxawaay moom itam Serigne nee na mi ngi koy fàttaliwaat bis bu baax a baax kon daal ngir tënk rek mooy bis la boo xam ni bisu mbégte la bisu yaakaaru la bis boo xamante ni mboolem xéewal yi fa yaakaar yëpp yéene nañ koo bokk ak jullit ñëpp moo tax Serigne Mbacke nee na bu sañoon ñëpp teew di góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwu ci kenn ñu fàttaliwaat rek àllarba le 22 mooy ngontu maam ma Fall mi incha allah alxamis le 23 mooy doon bisu cant gi nga xam ni moom lay sant mu Modou Rokhaya tudde ko suñu Ibra Ndar waaye dem samedi le 25 mooy bis bu mag bi nga xam ne nag moom la ñuy maase daje fii ñun ñëpp yenn ko sëriñ bi indi suñuy àddiya yendoo koo jébbal sëriñ bi bu guddee ñu fanaane màggalal sëriñ Modou Rokhaya jàmbaari lislaam ja nga xam ne dundam yëpp da koo jeexal ci lislaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.